jëjëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak euh, topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di RTV Dakar li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy dore kat yu nga xamante ne élimaanu jëwriñ bu njëkk bi nag di Ousmane Sonko daal dina koy yëkkati euh, ci génnuk àdduna ki nga xamante ne rek moom mooy doyen Amadou Makhtar Mbow mi nga xamante ne rek daal dina dëddu nak nit ki tey yéema ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre ci atum 2024 mu nekkoon koo xamante ne rek intellectuel la waaye nekkoon tamit homme culturel nekkoon koo xamante ne rek dundam yépp da ko daal réewam di Sénégal rawatina nag Afrique wërngal uh, këpp mu am jaar-jaar boo xamante ne rek bu mucc ayib la lépp rek mu ngi dooroo fi nga xamante ne rek moom mooy uh, la jot na ko joué nag uh, ci bopp direction bu UNESCO nga xamante rek la ñu fa tabboon mu nekk directeur général ba mu nekkoon koo xamante ne rek ku am vision la koo xamante ne rek ku am engagement la tey nag daal dinañuy ñàkk koo xamante ne rek yàgg na nag bu baax nag li nga xamante rek moom mooy honneur askan askan wi rawatina nag foofa ci Aziz mu nekk nag koo xamante ne rek lim fi bàyyi nag ci ay héritage ba nega ni dina wéy rek di inspiré nag génération future bi kii di Ousmane Sonko moom ilimaanu di rek jébbal njaal nag ko ñaanal yàlla yërëm ko te xareel ko aljana ba tey nag ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu mooy jomaay moom député bi nag ci annonce bi nga xamante ne rek France daal dina koy def jaarale ko rek ci intermédiaire ki fi ancien ambassade bu Dakar di wéyturo Jean Christophe Rifin mi nga xamante rek dafa daal di publier ci journal Le Parisien ni ki le 22 septembre nak ab article bo xamante rek da ko daal di wax Sénégal nak ci bëtu cyclone yi mu nekk discours populiste bo xamante rek nouveau ministre nouveau premier ministre bu yees bi di Ousmane Sonko daal di won na koy def mu mel rek bobu li discours nag moom moo daal di jaxal lek ñi di wa Paris ci tontu bi nga xamante rek parlement bi daal dina koy jugé ginnaaw tontu bi nga xamante ne daal dina tontu nak lamu mu daal di bind moom Guy Marius Sagna ak bind ko kii di Jean eh, Christophe Rufin moo di ne tànk Ousmane Sonko mi ngi fi moom da ngeen wéy di njàq ndax lii di impérialisme rawatina nag eh, lii di France Afrique dafay daal di jeex tàkk ndax signe bi nga xamante ne rek moom la Ousmane Sonko daal di wane dafay mel ni rek ñu ngi ci yoonu dem nag défendre suñu intérêt Sénégal ak intérêt Afrique eh, comme nag na ngeen bëggee woon rek di ko doxalee ci marionnette bi ngeen xamante ne activé yoon ngeen ko muy Macky Sall ngir empêcher rek candidature kii di Ousmane Sonko France ci jëmmi rek mu ngay jéem a mettre pression nag ngir mën a dominer bu baax Sénégal nee na kon nag bu yeboo rek ngeen bàyyi nag yëf yi di kaddu kii di kuy Marius Sagna ci article bi nga xamante ne rek ancien ambassadeur bu France Dakar daal di woon na koy fësal lekk ci ressource bu si si ab recherche boo xamante ne dañoo daal di gis ne rek dafa daal di sore lool ak populiste bu Sonko France ci jëmmi boppam rek jamono ji mel na rek yaakaar bu tas la am ndaxte nag bu demee bay jël ñenn ci opposition bi nag di ko gaaralee di ko gaaralee njiitum réew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ilimaanu jëwrin bu njëkk bi kii di Guy Marius Sagna gis na rek kii di Jean Christophe Rufin moom boppam rek ak yeneen yi nga xamante ne daal ay waxkat lañ rek nañu daal di eh, xam ne rek wala bu ñu xamul sax ñu jéem a dégg sénégalais yi ñuy wax Diomaye mooy Sonko Sonko mooy eh, Diomaye nee na nag réew bi di Sénégal nag mi ci yoon boo xamante ne rek yoonu développement la waaye nag nekkatul fi rek pour français yi ak néocolonial ndax nag dinañu ko ci génne te nekk na mbir moo xamante ne rek seen candidat bi nag mu ngi koy exploité bu baax France bi nga xamante ne rek moom moo doon bay di dundee maanaam daal jàppee sénégalais wala africain yi nag golo bay baabun dundee nag dafay daal di jeex di kaddu kii di Guy Marius